waaw dégg naa ko dégg naa ko loolu day xam nga moo tax ma ne la li li samay wax nu mu waaye bari na ci loolu nag daanaka ñi nga xam ne ñoo ñooy ñoo yilif réew mi war nañ cee gën a góorgóorlu bu baax ndax ñi nga xam ne ñoom lañ jox kaaraange gi muy ñu takk der yi ñoom lu mel noonu ñoo koy ñoo koy ñoo koy sàmm ñaare euh, gannaaw nag ñoom li ñu leen sàmmloo yi léeg-léeg ñu teg leen ci nag lu lu lu di leen tëj ak di leen toroxal ak di lu ne ñu di leen ko yàq euh, ñoom it euh, fañ waroon a yegg ci ci ci ci ci ci ci ci sàmm dañ koy dañuy dañ koy dañ duñ fa yàgg dañuy ragal waaye bu fekkonte ne li ñu leen sàmmloo bàyyi nañ leen ñu ñu sàmm ko ni ñu ko war a sàmmee kon ñoom fi ñu war a yegg dana fi yegg te buñ fi takk der yi fi ñu war a yegg bu ñu fa yeggee dana tax ñi def luubal duñ fa duñ duñ ñemee def li ñuy def waaye gannaaw xam nañ ne euh, léegi takk yi euh, ñu ngi def seen liggéey sax ndax loolu sañ ñu ko bañ waaye nag faaw ñu mooy tus lëf nag loolu bokk na ci lii indi lii ndax ba ba ba nga gisee ñoom takk der yi daawuñu leen eh, wax lu mel ni li ñu leen di wax mm-hmm. booba mel mbir mi melutoon nii ndax booba dañ daan def seen seen seen liggéey ba ba mu sës mm-hmm. te ñoom xereñ nañ xereñ nga xam ne jàmbaar jàmbaar seen liggéey buñ ko defee ba mu sës rek gaañ danañ moytu mm-hmm. waaye léegi gannaaw dañuy dañuy réservé nag ndax itam nit ku ne bëggoo ku la toroxal te léeg la nga dégg takk der yi ñu di leen wax yu ñaaw léeg nga gis leen ñu naan ñoo dañoo torture ñoo def lii di leen tëj sax ak di leen dàq faaw ñoom itam ñu xaw a moytu nag buñ buñ bëggee mu jóge fii daal li ma gis ne moo moo ko fi mën a jóge takk der yi ñu jox leen seen responsabilité bu mat te bàyyi toroxal yi leen di toroxal ak ak yi leen di def defuñu dara dañuy def day day day day ndogal ci biir yëf yi rek waaye boo gisee ñoom ni ñuy def ci frontière yi ci biir ñax mi biir jaan yi biir guddi gi li ñuy wër ñëpp di nelaw ñuy wër euh, léeg-léeg sax am na kër yoo xam ne dañ ko wër guddi ay yoon yoon te ñi ña fa ne ña ci biir kër ko sax ko yëg moo tax ñu ngi def lu lu ñu war a def waaye nañ leen xaw a may tuuti nag euh, ñu ñu bàyyi nag di leen leen di leen di leen di leen di leen toroxal nag ci liggéey bi ñuy def bu ñu ko defee rek léegi nga gis ñu ñoom it ñu def li ñu war a def te bu ñu defee li ñu war a def rek yëf yi léegi nga gis mu wàññi